dañu woote taskat xibaar yi pour jànnoo ak ñoom def la situation de la crise à l'université Cheikh Anta Diop lan moo xew université Cheikh Anta Diop li xew université Cheikh Anta Diop mooy université bu ñu taal ba mu doon dóom loolu moo xew université Cheikh Anta Diop li xew université Cheikh Anta Diop mooy seen amphithéâtre yu ñu taal lu xew université Cheikh Anta Diop mooy seen scolarité yu ñu taal lu xew université Cheikh Anta Diop mooy bus euh, campus pédagogique yu ñu taal lu xew université Cheikh Anta Diop mooy direction kuddu bii ñu taal lu xew université Cheikh Anta Diop mooy les biens dits personnels seeni oto personnel yu ñu taal ba mu doon dóom lii mooy situation à l'université Cheikh Anta Diop ñoo ngi koy mettitlu ñoo ngi koy nakkarlu lu xew université université niñ koy waxee temple du savoir la ku fi ñëw da nga ñëw sakku si xam-xam du espace boo xam ne yii war na fi am ñoo ngi koy ñaawlu ginnaaw ñaaw lu loolu sénégalais yu bëri dañ jàpp ne lu bees la si université Cheikh Anta Diop du lu bees si direction COUD lu ñu dal nun au niveau di campus social métti nañu metti nañu ñu bëri ñoo ngi demandé tey discours bi débat bi mooy dañuy tijji wala duñu tijji loolu lañ bëgg a leeral askan bi ñun COUD dañuy tënku si loo xam ne assemblée académique moom la wax lu ñu wax fii ba l'an deux mille vingt quatre ñun suñuy lu ñu jël comme décision pour le personnel du COUD mooy tant que les préalables ne pas réglés ñun duñu reprendre le travail dañuy rappeler ñun nous sommes des commis de l'État lu ñu wax mooy xëy liggéey si mais pour nga liggéey si il faut que ci sois dans de conditions de travail l'outil de travail est détruit dama bëgg journaliste yi ngeen jël direction bii ñun direction bi mooy suñu palais direction bii moo concentré c'est le cœur stratégique su nekkee taal nañu suñu direction dama bëgg ngeen wax ñu naka lañ mën a liggéeyee ñun suñu directeur fan lañ koy dugal du rek ay bureau direction bi yemul si bureau direction bi dafa relier avec les autres services direction bi fii lañ concentrer lépp luy serveurs yi fii lañ concentrer l'outil de travail fii la département yi di jóge seeni seeni dossier di dem dossier yooyu lañ taal du ay sièges ak ay bureaux yu ñu taal au-delà de la direction suñuy bureau lañ taal suñu fekkoon suñu bureau tamit dinañ ñu taal lii mooy situation la situation est extrêmement grave lu tax mënuñu reprendre mënuñu reprendre au-delà des véhicules du euh, particulier dama ne il faut ñu taxaw ci oto personnel bi parce que ñu bëri ñu taal oto yi étudiants yi la jàpp nañ ne oto yi ñu taal oto kudd la du oto kudd ay oto personnel la ñoom ñoo dem def prêt jënd seeni oto comme tous les travailleurs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 su nekkee nous n'avons plus de véhicules de transport naka la ñuy def pour travailler xëy si loolu mooy situation bi lii moo tax ñu ne leen ñun mënuñu tijji parce que les conditions ne sont pas réunies dama ne il faut soo leen xoolee tey suñu campus da ngeen di gis ne campus bu changé la da ngeen di gis ne adduna bi nit ñaa ngi ñëw si suñu université bi tey di xool liggéey boo xam ne moom la ñu réussir muy campus social muy campus pédagogique loolu nag dafa am ñu ko réussir mooy le personnel ak suñu directeur à la personne de Maguette Sène ñoo ngi koy jaajëfal ñun nag tey du ñëw ñu fàtte dëmba dañu àndoon ak Maguette seen si ngor si ñun la bokk du tey ay nit ñooy jóg nee le départ de Maguette Sène dama ne Maguette seen liggéey na fi liggéey bu war a mun a tax ñu renforcer ko et nous demandons à l'État de le renforcer parce qu'il a bien travaillé. Il a très bien travaillé. dama ne Maguette Sène papa la ci kër gi suñu kër suy takk dafa war a am taxawaay bu muy am parce que moom ñëpp dafa neutre si ñëpp kër gi suy tàkk day protéger la maison loolu la def amul leneen lu mu def te damay ne tey lañ fàtte mais étudiants yooyu di demander le départ de Maguette Sène en vérité mais Maguette Sène seen xarit la soo leen laajee ñoom ku si nekk lan mooy seen relation ak Maguette Sène dañ leen di ne jërëjëf Maguette Sène mooy directeur bu gën a disponible il est très ouvert étudiants yëpp day dem di leen fekk seen nekk di dem dans les restaurants di dem partout donc foofu laa bëgg a yem si cas Maguette Sène duñ ko mës a bàyyi tey la ñuy gën a nekk gannaawam tey la ñuy gën a ànd ak moom leneen lu ma si teg mooy agent kudd yi agent kudd yi dañu yàgg di leen di toroxal dans les universités te nous sommes des travailleurs comme tous les travailleurs de l'État agent kudd rek mooy liggéey si xelam du dal dès que mu traverse buntu bu mag bi xelam du dal parce que nu sommes dans cette ambiance de violence agent kudd rek mooy liggéey si ñu lay agressé agent kudd rek mooy ñëw ñu lay saaga agent kudd rek mooy ñëw ñu lay buntu xatal te dara du si mujj ñu toj sa bureau dara du si mujj saa yi ñu porté plainte ñu ne ñu bàyyi leen plainte lu ñu mënul comprendre tey mooy ñun dañuy exiger c'est l'État qui doit garantir la sécurité des personnes et des biens ñun ce demande ne pas beaucoup lu ñuy laaj bëriwul dañuy demander à l'État du Sénégal mu garantir la sécurité dans nos universités am na débat buy ñëw ñu ne débat des franchises universitaires campus social bokkul ci franchise universitaire donc comprendre ñu lu war a mun a tax saa yu fii amee problème policiers yi nekk si bunt bi il faut kër gi takk ñuy soog a intervenir loolu dañ bëgg mu dàkk plus jamais ça tubaab lu muy wax trop c'est trop trop c'est trop nous souffrons nous les travailleurs du coup nous souffrons dañoo sonn tey nag parents yi la ñuy waxal les parents d'étudiants sénégalais yi la ñuy waxal ne leen lii mooy situation dans les universités problème nag su amee du dañuy ñëw rek maasale ko ne problème bi jeex na nañu delluwaat dans les amphithéâtres université dafa soxla ndëpp dafa soxla ndëpp on a besoin d'assainir cette maison là ku nekkul étudiant ñu génnee la parce que loolu moo toj kër gi ku fi nekkul étudiant nañ la tegee ne la ñoo ngi demander aux parents d'étudiants na nañu wax ak les étudiants nañu wax ak seen doom ñoo xam ne dañu sakku si xam-xam ñu nekk si xam-xam ñun nag kenn kenn du ñu intimider dañu bokk sur les composantes de l'université dañu bëgg loolu tamit mu leer ñun personnel kudd la ñuy waxal te dinañ continuer di waxal personnel kudd nous avons pris nos responsabilités devant l'histoire wax avec le personnel wax ak sénégalais yi nee leen dootuñu nangu kër gi ñuy buntu xatal les agents di COUD donc plus jamais ça lii moo nekkoon kaddu yoo xam ne moom la ma intersyndicale bi dénk pour ma partager ko avec la presse